président de daf ñu tàmbal ay ay slogan nee ba muy ñëw au pouvoir sax li mu njëkkoon wax ci plan moom moom ci gëmul woon plan am mooy yoonu yokkute. gëmu ko woon il a même pas fait un an avec lui au pouvoir mu sànni ko dem uti PSE mais ba muy ñëw en 2012 yoonu yokkute la jaayoon Sénégal. il l'a abandonné avant 2013 pour lancer PSE. donc euh, chaque fois ñun nous sommes dans des dans des slogans ak dans des. programmes qui sont creux sooy xool programme bi parce que programme nag wax dëgg yàlla sëñ Mouhamed il faut nag mu nekk chose bi nga xam euh, lu ñu xayma la xam ko programme mun ñu ko base sur l'endettement sax en réalité su may jox la exemple yaa ngi wax léegi waxu euh, programme président le PAP 2 ñu wax le PAP 2A bi nga xam mm-hmm. euh, li mu li mu li mu soxla ci ay ci ay ci ay fonds mm-hmm. lu ëpp pour cent wala boog 68 pour cent yi. Mhm. mu ngi koy xaar ci ay fonds étrangers. Mhm. maanaam bitim réew la ñuy xaar ñu lebal ñu xaalis boobu. effectivement pour ñu mën ko liggéeyee ay programmes yoo xam ne mhm. euh, bitim réew it xaalis boobu ñuy joxe ñu si bëri du xaalis liquide. xam nga naa chaque fois on fait mal des affaires li sañ Abou wax euh, lu wér la wax. damay joxe exemple temps yële Algérie. ba muy def ay commande ay ñu sax ay avions au Brésil. si li mu jënd ci avion jënd ko ay avion nii c'est comme Sénégal li mu tàmm mm. def ni ko jaay ma avion andil ma teg daf ko bañ daf ko ne mm. par exemple damay jënd par exemple dix avion laa jënd ci yow mm-hmm. waaye nag huit yi bu la mm-hmm. yi mm-hmm. nga def ko lu neex waaye ñaar yi au moins da nga koy andi fii pièce par pièce nga monté ko sama kanam ay ingénieur ba pare maintenance bi euh, maintenance da ngay former xam ne ñoo koy maintenance parce que du mu ko jox pare après sooy sooy jënd da ngay jënd technologie bi. Mhm. cest à benn yoon doo soxla jëlaat avion bi ndax am nga ñi nga xam ne ba ñuy koy defar fekkeen ko xam nañ ko ñoom nañ ko mën a defaral seen bopp nit ki doon ngay affranchir au d'un étranger donc ñun Sénégal même bu ñuy leb sax dañuy leb mal dañuy dem dans des clubs club de Paris Sénégal moo fa ëpp lu mu dem ci Afrique ñu ñoo fi ñooy champion def club de Paris kenn defu ko fa te club de Paris c'est un club opaque bi nga xam ne dañuy leble ci ay conditions yu doy waar ay conditions yu ñaaw la ñuy leble doomu aadama yi ñoo ñoo ëpp ñoo ëpp lu ñu lu ñu dikk Sénégal mais partenariat gis nga lebi sax. Hmm. peut-être loolu xam naa nañu si dugg bu baax ci wàllu paradigme économique. parce que actuellement ñoo nekk dans un paradigme économique bi nga xam ne kii n'est pas bon. pour hmm. les pays africains. Hmm. paradigme bi flic ñoo ngi ci. mënuñu mënuñu émerger mënuñu développer wu. comme ñu bëgg a natt intelligence su animaux yi. Euh, golo ñëw ne man on va critère dafa war a nekk léegi garab ku dàq yéeg yaa gën a parce que golo xam na ni. loolu moom mayam mayam la. ñoom jën ak ñoom xar ak ñëpp du ñu mën a intelligent ci kawam. pays européen dañoo waajal un paradigme économique bi nga xam ne qui colle avec leur situation économique et leur culture. xam na ni ils sont déjà bien ancrés ci paradigme boobu. képp ku si ñëw da ngay da ngay nekk un suiveur rek dans dans un dans une dynamique de rattrapage ngay nekk. Mmh. mais mënoo leen mënoo leen plomber. Mmh. sur seen propre système. ñun nag on n'a pas à nous-mêmes et pour nous-mêmes un système bi nga xam ne moo méngoo ak suñu économie. Mhm. dañoo toog ba tey ñuy jox ay leçons. dañu ku bëgg développement ni ngay def. il faut régler nangam il faut nga am tel critère il faut sortir du rouge il faut tel agrégat. Mhm. ñu nekk di conformer wu. Euh, à une logique bi nga xam ne kii occidentale bu ñuy mhm. gën a affaiblir économiquement pour gën a renforcer le système occidental. donc euh, coow li mooy. le club de Paris boobu dafay leble si ay conditions yu ñaaw. Mhm. dafay am muy wax liy waxu terre bi. Mhm. mais terre nébuleuse sax fii au Sénégal. Mhm. boo laajee fonctionnaire yu bëri yuy wax si terre bi xamuñu terre bi ni ko ni ko financé parce que di club yooyu. c' est des ak milliards dañu si def yëpp. nébuleuse la. te mu ngi nii ba tey taxaw doxul de. Euh, milliardaires yi. dañoo bokk ci club boobu club la bi nga xam ne club informel la. le club de Paris est un club informel. moom ak euh, bi nga dëkk bu neex mën nga fa ñëw pour lépp pour rééchelonner ak réévaluer yëpp mën nga ko fa def. su ñu fa ñëwee dañ leen di jël yóbbu leen hôtel jëm leen xooxloo même bu ñuy dem sax ñu ñuy yóbbu sax c' est pas un négociateur. Mm-hmm. dëkk bu sérieux bu waree dem leb yi sax ay pool d' avocat la war a former. ñu mën a xool baat par baat virgule par virgule ndax ay ay ay ay sërëx dëgg sërëx yu doy waar. professeur loolu xanaa nekkatul leble déet parce que ay saay-saay ñoo lay lebal yu xam la mooy leble ak xam lu la mën a galgalee. Mhm. phrase bu ñu bind bu nekk du du du dañ ko bind am na lu ñu ko mën a jëfandikoo contre yow après donc pool d' avocat moo war a loolu ñun Sénégal loolu dañu ko def su ñuy dem ay fonctionnaires yoo xam ne xamuñu sax lu bëri. Euh, ak ay ministre yi nga xam ne dafay dem sax jàpp ni vacances a nekk yóbbaale mm. famille yam yóbbaale ay ay ay ay ay militant am mm. pour dem foofu noos mm. bu ñëwee hôtel hôtel bi ñu koy dalal sax bi ko tubaab bi dalal sax hôtel boobu sous surveillance a nekk ñu koy caméra mettre ko sur écoute lépp lu muy wax xam nañ ko lépp lu muy wax. ñu koy waajal pour xam kii la moo ko andi fan la war a yegg ak fan la mënta yegg. dañ lay conditionné maanaam. xam nañ léppam avant muy ñëw toog signature. su ñu yore toog table de négociation ba ñu koy toogal. Euh, li ñu koy proposé du intérêt réewam ndax kenn ku nekk sa intérêt moo la fa tax a jóg. Mhm. day gis tubaab bu ñëw na la dinaa la jox. promesse la yu bëri damay gis gars yi ay jox nañu Sénégal nangam milliards. Mhm. du joxe dara c'était promesse. Mhm. Euh, naa mettre à ta disposition pour tel projet bi nga bëgg projet bi 1000 milliards la projet bi man mën naa ko jël en compte waaye dama am sama sama mbir nga ne ko ah loo bëgg mun la 1000 milliards yi am naa entreprise bi nga xam lii mooy spécialité léegi man milliards yi mun naa ko jox moom mu ñëw liggéeyaloo ko sa dëkk. di mhm. tubaab daf la daf la dóor ñaari yoon. Mhm. ba pare soo deful nànk mu boolaas la waaye nag entreprise bu ñu ñëwee dafay am franchise maanaam matériel yu muy andi. Mhm. da koy da nga koy defal hors hors hors douane war ko dédouané. parce que matériel daf ko fas yéene tam jëndee ci benn entreprise bu nekk dëkkam. maanaam du jënd sax sa entreprise yow. maanaam cadre yi mu nar a andi sax yu koy liggéey sax ay cadre dëkkam maanaam yow ouvrier nga sa soxla sa dëkk. maanaam ni ñun ay ay ay ay ay ay contrat ni waxaalee projet maanaam dafay désavantager trois quatre à cinq fois suñu pays. ndax xaalis bi déjà du bouger c'est une benn genre subvention état la par rapport à une de ces entreprises. entreprise boobu am marché sa biir dëkk. ñëw liggéey foofu ay matériels mu jënd ko ci benn entreprise bi nga xam ne la. mu ñëw andi euh, mu sax euh, force de travail bi nga xam ne ay cadres mu jox leen liggéey. ubbi fa ay marché yu bees su defee sax mu ñëw lekkaale sa biir dëkk yow ndax suy yóbbu dafay yóbbaale mbir yi nga xam ne. à l'export kenn du ko fay. maanaam kii daf la gagner de bout et puis yaa yaa koy financé. waaw say banque seen banque yi fi nekk ñoo leen di financé. xam kon mhm. loolu c'est pas des manières yu ñu war a mhm. defaree. Euh, réew mi euh, ñu war a defaree donc mhm. aujourd'hui problème bi c'est un problème de paradigme en réalité. qu'il faut revoir et revisiter. nous sommes dans un paradigme mondial bi nga xam ne. paradigme libéral la. capitaliste. qui est injuste maanaam système bi ñu nekk si àdduna bi. Euh, courant philosophique bu ko tënk. mooy courant bi nga xam dafa jàpp ni nit. amul solo xaalis moo ëpp solo lu ne lu ñuy wax le capitalisme mm. le capital moo gën a important ci facteur de production yu am yëpp et que capital boobu nag dafa defar benn système bi nga xam ne système bi hmm. il est basé sur des mensonges d'abord hmm. parce que l'économie libérale est basée sur des mensonges il y a hmm. de fausses lois yu mu tëral yoo xam ne ce ne sont pas des si ay livres mooy offre demande c'est ay ay ay ay caay-caay yoo xam xaalis ñooy imposer seen dictat maanaam toutes les fausses lois yu ñuy jàngale c'est des lois qui sont fausses yoo xam wérul ce système là est basé sur l'injustice il est basé sur la concurrence dafay dafay fitnaal doomu aadama il est basé sur l'instabilité moo tax chaque instant muy am ay crises périodiques yi nga xam ne mm. c'est fomenté et réfléchi à des très hauts yi nga ñoom ñooy choisir kañ yi créer crise ak ban dëkk ñuy def crise bi mm-hmm. donc aujourd'hui nag ñun suñu bëggee waxu développement mm-hmm. dañoo war a tàmbali ci sérieux d'abord génn ci yëfi caay-caay bi nga xam ne tant que mm-hmm. ngi ciy nekk ak lu ñu ci mënti def si coono ak nit ñu fi mënti andi ak moyens autour des suiveurs yu nekk dans des rattrapages avec des pays étrangers il nous faut génn totalement de ce système là mhm. inventer un système qui est propre à nous système yooyu mënta ñàkk nag ndax peut-être dañ si dugg si waxtaan yi mais y a des euh, sociaux mm-hmm. euh, technologiques yi nga xam ne mm-hmm. qui qui qui engendre beneen beneen ordre bu bees je vais pas utiliser le nouvel ordre parce que baa bi ne très maçonnique mm-hmm. mais beneen ordre économique mondial bi nga xam ne euh, qui de se dessiner am dëkk yi nga xam ne commencé nañ positionné wu ñun dafa mel ne ay spectateurs yi nga xam ñu toog gradé di tàccu ba tey di xool dëkk yi naan